dellu si waat rek ci métier bi ndaxte bu ñu fàttee ne yow journaliste nga bien que nag léegi da nga teggi sa tànk tuuti yaa ngi ci côté communication bi ndax euh, jóge ci liggéeyum tasub xibaar nekk journaliste dem ci communication ndax yomboon na ci yow. waaw méttiwul parce que xam nga journaliste aussi ay jaar-jaar la je pense que dangay am benn tempérament pour def ko. Hmm. aussi pour gëm ko parce que dara gënul bon ngay euh, yëngatu ci loo xam ne gëmoo ko wala gëmatoo ko. Hmm. Euh, léegi nag euh, man je pense que bàyyi naa métier presse boobu pour beaucoup de raisons euh, mais surtout que dama moon envie am vie bu gën a stable. Mmh. Euh, même pas financièrement je pense que même en termes d'organisation personnelle mm -hmm. parce que xam nga boo amee euh, des enfants et puis nga bëgg euh, aussi di leen accompagner mhm. yenn horaires yi mënuloo ko mhm. en tout cas boo bëggee lu gën ci ñoom mhm. yenn horaires yi mënuloo suñu métier yéen a ma gën a xam nu mel c' très difficile moo tax ma ne yéen kenn amul seen pay parce que jàmbaar dëgg-dëgg yi mooy je pense les femmes dans les dans professions de presse je pense que c' est donc euh, et puis des fois da ngay toog xam nga benn post bu bu important ñëw ñu ñu jox la ko. Mhm. donc euh, nga nga profité nga dem. Mhm. tu vois et puis bon comme je dis rek man euh, beaucoup de gens m'ont fait ci presse bi. donc muy Sud FM après rajo Nostalgie xam nga muy euh, à l'époque Youssou Ndour et et mhm. Cheikh pour le groupe comme set so j'ai eu beaucoup d'opportunités donc j'ai pu aussi faire le tri xam li ma bëgg et puis bon pour man communication c'est beau parce que nekkatoo ci xeex bi parce que xeexu information dafa metti mm-hmm. communication emballage la mm-hmm. da am produit muy nit wala muy produit en tant que tel moom ngay jaay mm-hmm. da ngay naxante presse bi après ça devient des clients ça devient plus des des gens qui sont en face de toi <laughs> donc jàmm jooju <laughs> moo tax ma daal di profité ndànk daal ne xaabalam ci loo xam ne dafa may xaw a noppal. Mm-hmm. tu vois te coow bi arrêté quoi. parce que mm. coow presque dafa métti. dafa métti mais loolu est-ce que tamit du frein ci jigéen ñi parce que tey jii euh, ku yare groupe de presse jigéen ñi daal di fay bëri te xam nañ jigéen contrainte yi muy am euh, ci am jëkkër am doom war a yar sa njaboot loolu yëpp ndax loolu du gën a découragé ñi nga xam ne ñoom ñooy patron de presse yi. donc je pense que waru leen décourager parce que ku nekk aussi ci li nga mën a gis sa bopp rek nga mën a yëngatu je pense que defoon nañu métier bi par passion dem nañu ba ci biir def nañ ci quelques années gis nañ ci suñu bopp def nañ waroon def benn moment aussi je pense que mooy li ngay wax rek xam nga tey boo fi toogee am benn groupe de presse bu ñëw ne la lay jël loo bëgg a bëgg suite am na benn niveau bu ñu la fa yóbbu da dem mm-hmm. parce bon ma jël sama responsabilité def ko mhm. mhm. voilà sans compter boo xëy na aussi ci presse bi des moments yoo xam ne on les a mal vécu parce que xool le rapport aux politiques est très compliqué dans ce mhm, pays comme tout le monde sait c'est pas toujours évident de se battre euh, parce que les gens ne comprennent pas souvent que la vérité elle triomphe d'elle-même Mm-hmm. xam nga et que des fois on est plus des partenaires que des ennemis. Mm-hmm. mais bon il toujours ce dépit amoureux je pense entre la presse et la politique. qui mm-hmm. fait que ici traiter l'information est très très compliqué. très compliqué je pense que yooyu yëpp aussi dafay tax boo gëneen jël âge nga am aussi loo xamante yaa koy moytul sa bopp rek. voilà je pense loolu tamit ci doxin àdduna la bokk. daal bu ñu bu ci presse bi. yéen euh, ci seen ci seen jamono bi ngeen di def rajo di def télé ak yooyu ak jamono ju ñu toll formation boo xam ne en dehors du CESTI wala en dehors des au niveau même des rajo.

C'est une hmm. entreprise comme une autre léegi je pense que et dès qu'on parle de business on parle de profit dès qu'on parle de profit je pense qu'après les valeurs sont plus ou moins revues à la baisse. Hmm. parce que à l'époque journaliste yi comme on disait ku ci am paquetu Marlboro xam nga toog ci benn coin ou table pour bind sa article tu étais déjà content. Hmm. après li nga doon xaar mooy ñu sagal la ci papier bi nit ñi wala ni la noonu toj nga fi. mais côté wu écriture wax ci wala côté contenu. li nga doon wax. mais léegi je pense que comme partout euh, et puis euh, à l'époque journaliste c'était pas nous les stars c'était la radio Bien sûr. nous on vendait le support mm -hmm. Maintenant, c'est le support qui te vend. Ouais. C'est-à-dire mmh. que maintenant, quand tu écoutes les animateurs, je n'ai rien contre. Mais par exemple, quelqu'un qui a un anniversaire, Euh, il va en parler toute la journée. Mm. Mm. Il n'y a pas de valeur ajoutée pour l'info. Mm. Mais malheureusement, c'est partout dans le monde. Ça, il faut une tolteille à l'époque du buzz. Euh, donc forcément, les gens font moins attention au contenu. Et puis, xëy na ñun amoon nañu génération grand yi nga xam ne ñu bëggoon di encadre tiitaroo ñu doon jàngal métier bi. xëy na ñun aussi foofu dañu ci xaw a faillir parce que ñun aussi bi ñu ci tollee. xëy na déjà quitté woon nañu. Mm. pratiquement métier bi donc xëy na amuñu benn accompagnement bu ñu waroon def tamit boo xam ne ñun defuñu ko. Mm. Euh, mais l'un dans l'autre je pense que chaque directeur aujourd'hui de de média doit avoir la responsabilité du contenu qu'il donne. Mm. et puis bañ a fàtte ni responsabilité weesu na cadre média bi mu yor. parce que boo nekkee ci réew di fa waxal réew mi. Mm-hmm. je pense que am na foo xamante ni waroo ko jéggi. voilà en terme de dérapage. Mm-hmm. parce que la ngay yàq. mënoo ko construiraat. Mhm. et je pense xëy na ci responsable bi la ñu war a indi tey euh, presse bi pour que ñu choisir métier bi xam ne c'est un sacerdoce. Mhm. yombut. Mhm. mais ci ñàkk yomb boobu aussi ci la njëriñu euh, askan bi nekk. aussi que ñu mën a aussi am tuuti mesure. ci la ñuy wax di continuer di vérifier seen information maintenant c'est compliqué parce que. avec les réseaux sociaux, tout le monde est informateur. Tout le monde est informateur. Voilà, est ça, et à la seconde. Mm -hmm. Donc c'est très compliqué, effectivement. Et puis, tout le monde sait qu'une fois qu'une info est partie, mm -hmm. elle n'est mhm. pas rattrapable. Mm -hmm. Donc, tu as beau mettre 10 000. Euh, Euh, truc de communication nous on sait. Mm. Euh, c'est comme l'exemple qu'on avait sur le train bi ñu commencé di wax ci train bi que du am. Mm. nous xamoon nañ dinañu am. Mm-hmm. parce qu'on était en train de construire le train. Mm-hmm. mais Sénégal moo mel noonu c'est-à-dire que bu xësee wax bu njëkkee dem loolu la ñuy topp. loolu la ñuy gëm voilà après mm. dootoo mën a changer. donc des fois l'intelligence c'est même laisser les gens parler. après nag prouver après nag yow prouver mm-hmm. par résultat que effectivement li ngeen def def ngeen ko quoi mais je pense que war nañu lu bari ci société bi nu mu mel y a beaucoup surtout ci vie privée nit ñi. Mm-hmm. on se rend pas compte que les mm-hmm. gens sont terriblement exposés aujourd'hui que nit ñi mm-hmm. ñemetuñu wax. bureau boo dugg li ñu njëkk a xool mooy est-ce que fay nga sa portable. surtout <laughs> euh, est-ce que fay nga sa caméra et ça ne veut plus rien dire parce que maintenant avec le digital tu peux même poser ton portable donner semblant de l'éteindre fekk mu ngi filmé. donc fi mu wóoratul. te bu ñu demee ba léegi li nga xam ne moom mooy tax ay nit di mën a interagir mooy wax mooy làmmiñ mooy nga dem ba ragal loolu. te loolu moo lay wutaleeg mala yi. c'est que ça devient très